ñi ànd ak Ousmane Sonko moom moomee di xamle ne amul lenn lu mën a téye Ousmane Sonko bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 même bu dul moom sax plan dina daal di am te jongante yi 2024 yi mën nañ koo daal di gagné. ca jamono jooju waa diaspora bi ñi amal liggéey bu am am solo ñeel wàllum rassemblement ak manifestation ngir di dénoncer liy xew ci réewum Sénégal ngir àdduna wërngal képp daal di xam lan moo fii daal di xew waaye nag El Malick moom itam ma ngay génn di addu di xam ne ne Ousmane Sonko mooy seen plan A ba Z mooy seen candidat te amul lenn pour le moment lu ko mën a tere nekk candidat ci élection présidentielle yu atum 2024 ndax amagul benn décision boo xam ni tukkee na ci justice bu définitive buy mën a tax mu perdre ay droit wam kon nag daf ci dal di participer ñiy xeex ngir àq ak yelleefu doomu aadama yi ñu respecté ko ci réewum Sénégal gannaaw ba ñu amee victoire ci troisième mandat bu président Macky waa F24 nañuy dem rencontrer waa de l'homme jébbal benn këyit boo xam ne ña nga cay naqarlu te di ñaawlu liy xew ci réewum Sénégal di sàkku itam Ousmane Sonko ak i natangoom yi nekk ci kaso bi ñu daal di leen libéré Juan Branco di xamle ci réseaux sociaux yi que ne ñu ngi teg ay jéego ci lu ñeel wàllum politique ak diplomatie waaye buntu yëpp la ñu daal di tëj ka tëjul ay buntaam moo di maître Ciré Clédor Ly ma ngay génnee la nekk ca xolam ñeel Ousmane Sonko mu di client am doon xam le ne situation bi doy na waar lool te lu ne mën na cee daal di xew di sàkku itam kii di jëwriñ bi ñu dénk lépp lu ñeel wàllum yoon ci réewum Sénégal moom Ismaïla Madior Fall moomu lay demoon ca Jeune Afrique daal di fa yëkkati ay kaddu ñeel Ousmane Sonko ak mbirum condamnation am Pape Alé Niang indil ko ci aw tontu di ko xamal ni Ousmane Sonko bu mënul woon ñëw rendre boppam justice daa fekk ne yéen a ko waral barricade ko mënul dem mënul dikk ca na mu waree kon moom moomu lay fan la waroon mën a jaar yi daal di dem jébbal boppam justice ca jamono jooju président Macky Sall dem ca bërëb bu sell ba di Touba ziar xalif général des Mourides sëriñ Muntaxa Bassirou Mbacké di ko xamal ne bii mooy nekk mujjanteelu ziaram en tant que président de la république du Sénégal te bés boobule ci lañ may liberté provisoire ki nga xam ni moo di Cheikh Bara Ndiaye chroniqueur bu Walf TV gannaaw ba nga xamee ni lu toll ci téeméer ak benn médecin ak pharmacien ci réewum Sénégal daal dinañuy addu ci lu ñeel grève de la faim bi détenu yi di daal di amal dinañ ko bàyyi ndax seen wér gu yaram moom moo nekk enjeu te ëllëg lu ne mën na leen cee daal di fekk naka doone ci la Ndiaye chargé de communication dal di xam ne ni Ousmane Sonko suspendre na grève de la faim bi mu doon dal di amal jamono jooju itam Touba ma nga fees dell ak ndox inondation yu dul jeex waral ñu samp aw laaj ci naan ndax nekkul état du Sénégal dafa dal di échoué ci lu ñeel wàllum inondation yi fukki at ak ñaar léegi mu mat dal di toog ci bopp nguur gi te ba tey jafe-jafe yooyu mu ngi fii dal di am jafe-jafe yi du jeex ci Sénégal waral ña nga xam ne ñoo di waa diaspora yi nekk ca bitim réew di amal ay marche ak i manifestation bi ci gën a fees ca France place de la République benn veillée boo xam ni ña ko doon amal ngir sàkku ñu libeere Ousmane Sonko ak képp koo xam ni da nga di aw détenu politique. AGT News L'actualité de la semaine a été principalement marquée par Maître Seyd Larifou qui s'est rendu aux États-Unis à New York où il a participé à une émission télévisée pour dénoncer l'injustice que subit son client Ousmane Sonko ainsi que les détenus politiques au Sénégal et souhaiterait l'intervention des autorités américaines. Au même moment, Maïmouna Dièye, avant de bénéficier d'une liberté provisoire, était évacuée à l'hôpital Fann pour des soins en urgence. Diallo Diop revenait sur la candidature d'Ousmane coalition de PASTEF, mais ce dernier a souligné que quelle que soit la situation, ils auront un candidat, qu'il soit Ousmane Sonko ou un autre, ils vont participer à ces élections. La diaspora continue de multiplier les manifestations pour dénoncer la situation politique au Sénégal, notamment l'emprisonnement d'Ousmane Sonko et des autres qu'ils appellent des détenus politiques. El Malick Ndiaye, au même moment, confirme qu'Ousmane Sonko sera leur seul et unique candidat, le moment, il n'a pas encore perdu ses droits, n'ayant pas une condamnation définitive. Le F24, après avoir eu gain de cause par rapport à la troisième candidature du président Macky se penche ainsi sur le respect des droits de l'homme au Sénégal, raison pour laquelle la plateforme a rencontré le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour y déposer un mémorandum sur la situation au Sénégal actuellement. Juan Branco, sur les réseaux sociaux, a des démarches mais toutes les portes sont toujours fermées. Maître Ciré Clédor Ly, avocat d'Ousmane Sonko, avertissait sur la situation de son client et souhaiterait que le président Macky limonge Ismaïla Madior l'actuel ministre de la Justice garde des Sceaux, qu'il considère comme incompétent. Sur Afrique, Ismaïla Madior avait tenu des propos par rapport à Ousmane Sonko et sa condamnation définitive, mais reçoit la réplique salée de Pape Alé Niang pour lui dire la justice s'il avait handicapés est mis injustement sous résidence surveillée et barricadé pendant plusieurs jours à la cité Keur Gorgui. Le président Macky Sall s'est rendu à Touba pour son ziar au khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké tout en lui faisant ses adieux car c'est son dernier magal en tant que président de la République du Sénégal. Au même moment, Cheikh Bara bénéficiait d'une liberté provisoire sans un médecin et pharmacien avait fait un communiqué la grève de la faim des détenus politiques pour sur les conséquences que cela pourrait engendrer et ainsi les inciter à l'arrêter le plus rapidement possible. Pendant ce temps, Ousmane Sonko arrêta sa longue jet, information donnée par El Malik Ndiaye, chargé de la communication. Touba, cette année, marquée par les inondations, raison pour laquelle tout le monde se pose la question à savoir si le président Macky Sall et son gouvernement n'ont pas échoué par rapport à la gestion des inondations après avoir fait près de 12 ans au pouvoir. Ceux qui savoir ce qui se passe au Sénégal partout dans le monde, c'est la diaspora sénégalaise. Elle mène des activités partout dans le monde, notamment en France à la place de la République où de nombreux Sénégalais se sont rassemblés pour demander la libération d'Ousmane Sonko et des détenus politiques. AGT News